mana munta ñak ci aduna bo ne damay fajj nangam ku ci jaar fu ne munta da nan lolu amul wa yok awra bi may def lu ama am la hmm. defal na ko ñu beuri gis nañ sen bop fajj nak ñaar yi la da ngay fajj nit ki mu wér hmm. nga fajj nit ki du wer ak lo man man man ñi nga xamantene dañu nekk ci hôpital ta du opérer hmm. des fois ñu opérer nit mu réussir ñu opérer nit du réussir lolu nañ xam ni mbiru yalla la waye ñima ci fajj kenn mënu ko ci mbirum yokk écran moom ma tiim bu dee dëgg xam ngeen bu dul dëgg xam ngeen ñi ma ko defal bëri na mm-hmm. man samay mbir amul laam-laame damay wax muy clair mm-hmm. muy wàllu yokk awra bi mm-hmm. ñi ma ko defal kenn xamul nu mu toll bu ma ko ko commencé ak léegi di ko def ay at la sa boobaak léegi nit ñaa ngi gën a daw di gën a ñëw kon bu dul woon dëgg du dem ah yéeme bi mu yéeme moo tax ñu bëri xëy na gëmuñu ko waaw duñ am na nga xam te moom laay wax nii rek moom laay leeral nii bañ ko dalee def yàgg na. Mhm. chaque jour ni ñaa ngi gën a dugg. Mhm. xëy na buñ ci amul woon ay résultats. Mhm, duñ ñëw duñu ñëw. yàllaa ngi ciy suturaal bu baax a baax a baax ñoo ngi faj nit ki muy wér kooku mbiri suñu borom la yàlla ngi ñuy dimbali waaye yokk awra lu am a am la sa araamul. Mhm. doonul lu lu bon doonul lu dara. faj la rek ku feebar faj est-ce que du dimbali jaam yàlla yi. ko xam ne awra mu ngi tuuti parce que des fois nga gis koo xamante ne awra bu gàtt la yor. bu mhm. tuuti. Mhm. nga ñaan yàlla dimbali def la ngay def def la nga ba awraam toll na mu war a toll. sant dimbali nga ko. kon am na loo xam ne nit ñi bàyyi toog naan lii amul bala nga naan amul da nga ciy dugg boo duggee ba pare gisoo bu la neexee ne amul waaye. toog fa nga toog naan lii amul yokk awra wu amul ñii dañuy dóor ak wala naan ñun dépassé nañ fu ñuy wax di dóor bu doon dóor rek moo ñu may xaalis kon heure bi kon lii ñuy def dañ koy bàyyi dem dafi leneen ndax ñooy ak leneen yoo xam bu ñu ko doon dóor pour dóor rek bu ñu ko defoon macha allah waaye dañoo duxul ci loolu ñun dañoo yor ndey yor bàyyi yor ay njaboot kon bëgguñu loo xamante ne xaalis bu tilim bu di ko lekk lépp lu ñuy def lu dagal la lu jub la mais duxuñ ci lu ñàkk fu la sëñ na nit ñi bàyyi loolu dëgg la euh, euh, am na ko ne ma laajal ma ko ndax loolu amul benn conséquence amul benn conséquence boo ko mm-hmm. xasee def à vie la yokk awra bu ñu la ko xasee defal à vie la dootul dañati bu ñu la ko xasee defal à vie la sa traitement bi cinq jours la cinq jours ci kàttanu si borom sa awra toll ni nga bëgg macha allah waaw te mu ngi may laaj ne ma ndax loolu bu ñu ko yokkee doole bi mu war a am est-ce que dana ko am macha allah da koy gën a am bu fekkoon ngay gaaw a daanu tax doo gatoo gaaw a daanu ci yokk bi ñu ko yokk yokk boobu da lay gën a dëgëral sa awra maanaam macha allah awra bi day gudd jot sëkk sa lépp nag du dimension boo xamante ne du doon loo xamante ne lu lay indi luy jéggi dayo wala dara dimension yi normal la rek mm-hmm. yu normal la yu yoo xam ne daal du sonal nit ki doomu aadamoo koy yor mm-hmm. Mm-hmm. nga jël ko def ko yàlla may la ci ndam nga gis sa bopp ba à vie lay dem ak yow amul benn effet secondaire du la teree am doom du la teree def dara lépp day toog loo xamante ne ci dëgg la ci lu jaar yoon